tey ñëw section tey fii nga xamante ne mooy sant Géej ñu bëgg a waxtaan li nga xamante ne tam mooy ah, xew-xewu dëkk bi li nga xamante ne xew na fi ci lu bare bare bare ay activité ak ay manifestation ay direct bu bare bi nga xam ne seen jëm jamono ji mu fi di tuur beneen bi tamit ak làmb ji mag yi nga xamante ne ñu ngi siy jëmale di jëm si ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène ak xale bi nga xamante ne mooy Lac de Guiers daan nañ gis làmb bu musaan am ñu bari dañ doon def ay sot doon wax ñu jëm ay jëmi jamono ji surtout kenn ku wax benn sant gi waxtu benn seetkat waxatul lan la war a loolu neen loolu lépp tey incha allah ku si bëgg xam te dama nga collecté fi nga xamante ne tey mooy Dakar Midi ñu bàyyi sant gi mu nuyu sant gi ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay auzu billaahi mina shaytaani bismillaahi ci bàkke maam Ngor ak maam Waly ma sant yàlla bu baax di gërëm yonent bi di dëggal ni bay lay rasulullah di doon taalibe Seydina Limaamu yaakaar bàyyi laay ak Seydina Isaa ruuwallah di gërëm Mouhamed Ndiaye saltige Yoff di gërëm saltige Saliou seen di gërëm Ndeye Salbe Linguère Diouf di gërëm saltige Ibrahima juuf di gërëm Cap Vert bi yëpp ngoor ba tubaab jalaaw di gërëm ñëpp euh, loolu laa la mën a wax daal waaw sant naa yàlla bu baax alhamdulilah léegi ñu ñëw ci euh, ñu jëm ci li nga xamante ne mooy euh, lamb ji euh, diggante ki nga xam ne mooy Lac de Guiers Eumeu Sène actuellement xam na la war mën a demee tey mi bëgg nga defal ah, am nga loo si ak tam am am loo tamit te noo gisee lamb jooju diggante Lac de Guiers Eumeu Sène. waaw. Lac de Guiers Eumeu bu fekkee yàlla rek laay waxal li ma gis de wax dëgg na yàlla ëmm seen laa gis mu daan dégg nga waaye làmb ji ak luy mënti xew kawoo lay mujjee mais am na benn sarax boo xam ne nii li ma si tere laa toog di wax de damay wax lu leer ndax ëllëg Sénégalais dafa mën a weddi bu fekkee Lac de sarax boobu dafa àgg si moom ba mu def ko mën na daan mais bu fekkee na sarax boobu àggul si moom barki Seydina Issa Rouhou Laye Eumeu Sène daf koy daan barke bàyyi laay mu ma yaakaar parce que booy wax si télé na wax loo xam. dëgg la mais li ma gis man mu leer man nañ ñi dama ne Eumeu Sène man laa gis mu daan Lac de mais dafa am benn sarax boo xam ne mi ngi si diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers tey li may wax ñi koy dégg bu ñu ko déggee dinañ xam ne li may wax xam naa ko donc sarax boobu bu fekkee Lac de daf ko génnee ji mën nañ daan Eumeu seen mais bu fekkee génneewul sarax boobu noonu barke bàyyi laay Eumeu seen daf koy daan te di la wax di la waxaat ne la amul nit ku yàlla sàkk ku mën a dimbali lii ma wax ba du am mun na mun na xari parce que ñun cosaan moo ñu jàpp cosaan moo ñu sonal cosaan moo ñu wërloom réew ñun dañ ñoo ndëppal tiim suñu bopp yi buus ñu awrab yi yee ñu wax ñu man keroog bu ñu la sàjjalee jaan ji génn boo ko gisoon da ngay daw si tere laa toog di wax yaa may saga yàlla ko yàlla yërëm keroog paalin Touré taaliba Mouhamed Ndiaye moo ñëw dalal jaan ji dëpp ko si si benn bool ba ñu ba pare mu jox ko am jox ko deretam mu dellu parce que dégg nga bu du lépp la ñu mën a wax mais fenkat yi nañ bàyyi fenn naxekat yi bàyyi leen naxe yi ngay uti liggéey ngay toog si télé yi di duul di fen di jaxase. da gis ku ñëw ñu jaxasalaat sa fan famille nan la sa bokk bi mooy def lii sa lii mooy def lii ay duuli kase la ndax bëgg lu ñu am seew di wax benn affaire nag balaa dina am coow képp gi nga xam ne ñoo ngi yor rajo ak di yor micro yi comme journaliste yi ak siit yi hmm? nañu tàkk ñu taxaw ñu déggoo ci seen biir ndax ñoo ngi leen di fexeel ndax xamal moo tax tàkk-tàkk yi fi mujjee coow li fi am yaa ngi dégg baax li ma la loolu bu ñu jugul ñoom am nuñ taxawee dinañ faagaagal ñi nga xam ne dañuy yor rajo yu bari ak ñi ñu yor siit di gërëm ay jàmbaar yu mel ni Bougane Gueye ñooñu dañoo ne war di leen gërëm di leen sant parce que dañuy xeexal réew mi parce que dëkk bi yàlla daf ko defar yow boo nekkee doomu xaraam ñëw si dëkk bi bëgg a toroxal dëkk bi yow yaay torox mais dëkk bi du torox. dégg nga dama ne boo nekkee doomu xaraam ñu bëgg a toroxal dëkk bi yow yaay torox mais dëkk bi du torox Sénégal gii daam ñu fi jaar Serigne Touba fii lañ ko suul Baye Laye fii lañ ko suul Baye Niass fii lañ ko suul Mame El Hadj ko suul dégg nga te wërdu salaatul faatiha Sénégal daf see am ndigal ñu yebal ko mu ñëw Tiwaawan nekk fa ñu xam ne lii lu yàlla yàlla lu yàlla namoon la bind ko mu démb tey doog a ñëw. kon donc senegal fii kenn mënu koo tilimal góor jigéen mënu fee am baat fii góor jigéen du fi am baat góor jigéen du fi am baat tey góor jigéen du fi am baat suba ndax dégg nga ma dëkk bi nag dana soppeeku bu baax waaw di sant kilifa yi bu baax kilifa yi waxuma duulkat yi de ay Kounkandé ay Abdoulaye Diop Xaas ak ah, ah, keneen ki mu tudd Euh, kii Thierno Moule saw mhm. duurkat yooyu yaa ngi dégg waxuma ñooñu borom ruq yi borom kurus yi borom leer yi ndax nag ñun ñëpp gis nañ ñu doon dugg ci dëkk bi ñun ñëpp gis nañ doon xew ci dëkk bi ñuy taxaw samp xeej ñuy taxaw dugg seen ruq wax ak yàlla te am nañu yàlla rus ci Sénégal gi man gëm naa ko fii fii am nañu yàlla rus ñoo xam ne bu ñu tëjoo seen biir néeg ñaari per ñetti per yàlla ubbi buntam ne lu nga lan ngeen bëgg dégg ma